ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci juróom-ñett fukk ak juróom ñaari test yi ñu def ñaar fukk ñoo ci positif maanaam juróomi cas importé moo ñu jóge bitim réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu jóge yore doomu jàngoro bi benn cas communautaire benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër na ci bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye am na ñaari malade yu sonn yu nekk sawataas ci bésu tey dalee ko ci cas bi ñu njëkk a am Sénégal woññi na téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari cas ñaar fukk ak juróom ñett wër nañ ci mu des téeméer ak fanweer ak ñeent ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmanteeg ndigle yi nga xam ne moom la ñu joxe